وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فكبر التوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nuyoo bi dañ ciy jiital sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool kattanal ko dëgëral ko wéral ko ba lépp li nga xam ne yéene na ko ci liggéeyu sëriñ bi mu defee ko na ko bëggee ci barke borom Touba ngir gàttal nuyoo bi dañuy jëlaat lépp teg ko ci loxob sëriñ Abibullahi Mbàkke moom dana xam nu mu koy séddalee kenn ku nekk la yàlla ca moom mu jot li ci nuyoo nuyu bu baax a baax mbooleem ñi fi teew waaye bu ñu waxee ñi fi dañ ci jiital képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bii nga xam ne moo ñu fi dajale di Touba ca kanam mooy ñëpp tàmbalee ko ci ñi nga xam ne liggéey bi bi ñu ko wootee te ñu toll ci ñeenteelu at bi ñoo ci njëkk a wuy si ñi ci njëkk a si tàbbi ci di ci góor góorgóorlu di ci dox ba tax ba tey tax mu mu agsi fii ñooñu fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rawatina waa bitim réew rawatina waa bitim réew ndax ku xam Touba ca kanam ak bitim réew da nga xam ne war nañ leen a beral ab nuyoo ak cant kon ñooñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen jaajëfal. di santaat yàlla bu baax a baax dellu santaat Serigne Touba ci liggéey bi fi mu toll fi mu ne nii ci tolluwaay bii nga xam ne ci la ñu toll tolluwaayu tàmbalib liggéeyub defar mbeddi euh, dëkk bi liggéeyub defar yooni dëkk bi ginnaaw bi nga xamee ne amati nañ ci ndigal ci Serigne Mountakha ndax Touba kanam mooy kuréel goo xam ne li muy liggéey lépp Serigne Mountakha jox na ko ci ndigal laataa ma koy tàmbali waaye teewut fu ñu toll rek. serigne abibou day àndaatal bi delu wat ci lu wat ndigal ndigal lu mujj lii ko yes lu waté ba yëkkati ligéy bi woté ko ñun ñëpp maase na gis ni mu démé kawe na jot biñu may wax né dañ ñoy jox kàddu légui kàddu dalal ak ubbi dis na ci man duma la ñaka dis ndax fi ligéy bi tollu la duma la ñaka dis ndax nun fi nu tollu la ak ligéy kon lepp dañ koy jël ciant gi wat ko wat ko serigne bi serigne bi di wax rek ne Touba ca kanam a ngi nii biñ ko wootee dañ ne bëgg nañoo am ñaari millions yi murit weer wu dee kenn ku nekk ci ñoom joxew ñaari téeméer ñuy man di am ñaari milliards par at ba par weer man di am ñaar fukki milliards ak ñeent par at loolu bi ñu ko tàmbalee léegi wax naa ko léegi ñoom ci ñeenteelu at bi fiñ ci toll boo ko noon xayma mooy téeméer bu ñu wut bu nekk ñoo ngi toll ci diggante juróom ñaar

européens yi mu jox leen organisation ak tegum pexe ba mën a dund ci kaw nit ñi américains yi mu jox leen ak benno ñu créé état fédéral boo ñëwee ci Sénégal da ngay laaj lañ lañ lañu suñu borom defal suñu borom dañoo jox Serigne Touba kon li nga xam ne lépp yàlla séddale na ko ci àdduna bi da ko dajale jox ko Serigne Touba li tax loolu mooy bu dee technologie bu dee pétrole bu dee organisation bu dee ak benno mooy li Serigne Touba doon jàngale mu tënk ci ñetti baat baat bi ci njëkk mooy yëg-yëg ba ca topp mooy pas-pas bu ñeenteel bi mooy yitte te mooy bu ñetteel bi mooy yitte ñetti baat yooyu mooy baat yi nga xam ne moo tënk yoon wi te mooy yi Touba ca kanam di doxee yëg-yëg boobu ci la ci la ñu wootee liggéey biñ ko wootee ku nekk ci ñun da koo am yëg-yëg wuy si ko biñ ko yëgee wuy si ko pas-pas moo la ciy bàyyi waaye yitte nag mooy tax nga sax ci loolu moo tax ñu ne jaayante bi ñoo ngi gërëm ñëpp ñi ci joxe waaye li ëpp solo mooy mu fexe ba nga xam ne kenn ku nekk ci mboolem taalibe yi da jël engagement danga nga amuk dogu ci ne da nga sasoo nangam ca la nga man weeru dee nga matale bu ko defee loolu dana tax bu ko defee loolu dana tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy ñeewe ab dëkk fu mu mën a nekk ci àdduna bi moo xam borom pétrole la wala borom technologie wala borom leneen ñu mën ko indi dëkk Serigne Touba bi mu ne fi Serigne Touba amul morom ji niy wax dana jóge ci ay wax ci lu leer ci àdduna bépp jàll ci ay jëf ndax naka jekk mi ngi ci ay jëf waaye daa jot nag ñu gën ko yëkkati ba Serigne Touba amul morom jooju sës leer nañ ci ay jëf rawatina Touba ci kanam gi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko. kon ñuy wax ne liggéey bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd yi nawet bi màggal gi mi ci biir nawet bi màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest wala ci àdduna bi sax bu la neexee gannaaw Arabie Saoudite Makka. te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren jii ñu ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak boroom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma jëm koo natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel ne dañ cee sóoraale woon ne danañ am jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bii ci ndigalul sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye du yamati ca nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk ci biir loolu na kon ci la ñuy wooyee bépp boroom xam-xam bépp borom xam-xam borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne liggéey yu mel nii ku koy tàmbali da war a def ay études euh, préliminaire jaarale ko fépp balaa ngay tàmbali waaye liggéey liggéey Touba kanam bii nga xam ne ñëpp nangu nañ organisation organisation bi ci nekk ñëpp nangu nañ transparence bi ci nekk biñ koy tàmbali amutoon étude te bu fekkonte ne dañ ko waroon a étudier def ko ci ay document teg ko doog a tàmbali kon nëgg ni tàmbalee guñu kon ab liggéey ay coow murit liggéeyu sëriñ bi da nga naan bërëb départ ànd ak ña ngay àndal xam-xam ba dab ko ñu ànd di nos di liggéey di dem ñu ngi ciy woo borom xam-xam yëpp ñu ñëw ànd ci liggéey bi jàpp ci ngir lu ñu bëgg ñu mën koo am xam naa lu jëm ci leeralu liggéey bi sëñ Abdoulahi Mbacke moom sëñ Dame Atta mi nga xam ne moom moo mooy coordonné projet bi dina ci dina ci dina ci gën a ñëw indi ci indi ci ay leeral waaye ñu bàyyi xel ci ne daal liggéey bi tey lay tàmbali jëm ba abadan fan yii nag bi ñu tàmbalee jaayante bi di defar ay affiche di ko publier am na ñenn nat ñu jàpp ne am na ñenn nat ñu jàpp ne loolu waruñ koo des ah kay lu tax ñu war koo des mooy joxe ñaar la kiy joxe mën naa nëbb kiy joxe mën naa feeñal la muy joxe waaye la ca am solo mooy ab xolam jubluwaay xolam lan moo ca ne loola mooy la am solo la ca toppat ci Touba ca kanam mooy Touba ca kanam day soññee ba Touba ca kanam tàmbalee ba tey képp ku mas joxe lu mag siiwal nañ ko li ci topp mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan joxe ñaari téeméer mooy ñiy joxe tey jii di jaayante waaye mooy ñu jiitu woon am nañ tawféex yu bëree bëri bi ci njëkk tawféex yi liggéey yu am solo yëpp ñaare buñ ko woowee buñ ko wootee ñu ñu jàpp ne ñoo xaw a gën a néew doole ci wàllu am am ñoo cay te loolu feeñ na beneen bi ci topp tamit ñoom euh, mooy li alquran di wax ne ulaayika yusaarixuuna fil xayraati wa hum laha saabixuun mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu ñoo njëkkante yiw wa te ñoom ñoo jiitu kon ñi joxe ñaar téeméer ñoom ñoo dalal tey ñi ñëw di jaayante ñoo leen dalal kon ki daan joxe ñaar téeméer bu jàpp ne mukk dañ koo ginnaawal ci lii ndax kat lu mën a xew jaayante yi am na solo mu ne suta lim ñu jaayante ñëpp ak Pastef bañ ko jaaree waaye li ëpp solo nag moo ñu saxal pas pasu weer wu dee danaa joxe nangam loolu mooy tax ñu mën koo nos mooy tax ñu mën koo organiser ba nga xam ne lépp lu ñu yéene ci dëkk bi dañ ko mën a liggéeyal sëriñ bi di jeexale nag kàddu yu cant jëmee ko ci mboolem waa Touba ca kanam boole ko bu ma ne waa Touba ca kanam gàll na ci ñëpp teg ko ci loxob sëriñ Abibulahi Mbacke mii nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sant bu baax a baax alaaj sëriñ Tàkku Mbacke sant sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ Abib bu ma leen limee mën naa yóbbaale ñëpp ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax kat ñoom ñooy kaaraange liggéey Touba ca kanam liggéey bi fi mu àgg tey ba nga xam ne bi ñu doog a tàmbali njabootu sëriñ Touba gi ñi ci ëpp ci ñoom yëkkati woon nañ ci kàddu soññee ko loolu bu ko Touba ca kanam manee am sëriñ Abibu mi nekk ca bopp ba ànd ko ñi ma ko àndal moo ko may noo koy sante bu baax Mbàkke di ko diko di waye diko waaye ci turu mbolom mi diko di ñom jégalu kilifa ci turu mbolom yi ndax nun ay donga lañ bu ñu nak bu ñu mënee and ak ñom ñu wacce seeni daraja ba tolok ñun ñuy wax di ñu jox ñuy wax di len delloo ci liggéey bu ñu bok dañ mo bëgg dimbali waye loolu wëruñ ko wona a ndax duñu suñu nawle ci genn anam kon ñoo ngi leen di jégalu jamono bu nek di len dogal ngant di len ñaanal wër gu yaram a fan di sante ke jégalu waatu Touba kanam yëpp di ñaanal ñëpp ndam di wax ne ñoo ngi wàccee foofu kàddu yi jot li kaddu gi jël bi bi déedéet déedéet heure am dafa jot si. cinq minutes li jëm ci kàddu yi cant yeeg ngërëm yi sëñ abi bu lañ koy lañ koy mu jëm ci njabootu sëñ Touba gi ndax xam naa liste bi ñu ma jox loolu lañ ci jublu wasalaamaaleykum wa rahmatullah